nga xam ne xare badar boobu Baye Cheikh Seydouna Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko jiite woon mu nekkoon si fukki fukkielu fan ak juróom-ñaar fa tabarakallahu li waraloon xare bi nag len na dong la ndax ba jullit yi gàddaayee jóge madinatu màkkatal mukarrama ñëw ma madinatul munawwara dafa am bés ñu am benn caravane boo xamante ni ku ñuy wax Abu Sufyaan moo ko jiite woon bokk si waa màkkatal mukarrama maanaam ñi weddi woon Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si boobu jamono jullit yi bëggoon na ñëw nangu li nga xamante moom moo di caravane bi attaqué ko Abu Sufyaan dem wëtu ji wàllu fa li nga xamante moom moo di makkatal mukarrama waa Quraysh ñëw jóg songa sa Seyduna Muhammad nekk si madinatul munawwara jamono jooju jullit yi dañu néewoon lool nekkuñu woon lu dul trois cent treize personnes yéefari ñu ngi nekkoon mille personnes xam nga 1000 personnes ak 313 yaakaar naa bu ñu jàmmaarloo bu si yàlla subhaanahu wa taala dugalul loxoom rek 1000 personnes yi danañu faagaagal massacre li nga xam ne moom moo di 313 personnes yooyu nga xam ne jullit yi keroog ñaari fas dong la amoon waaye ak li nga xam ne moom moo di 70 chameaux di juróom-ñaar fukki gëléem moom la ñu àndaloon ngir mën a dem xeexi jàmmaarloo ak yéefar yi ngir ñoŋal seen der ñoŋal seen lislaam waa itam yëkkati li nga xamante ni moom moo di drapeau lislaam di baatu laa ilaha illa allah sayduna muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne keroog si xare boobu jullit yi ñàkk nañ si fukki nit ak ñeent rey nañ ko si ñoom nga xamante ni juróom-benn yi ñu ngi bokkoon si muhaajiruun yi muhaajir boo ko déggee mooy ku gàddaayoon jóge makkatal mukarrama ñëw ma dinatu war a ànd ak Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi faatoon juróom-ñett si ansaar yi muy huit ansaar yi boo leen déggee mooy ñi nga xam ne bi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jógee Makka ñëw Madina ñoom ñoo ko gëmoon topp li nga xamante moom moo di diine l'islam waaye keroog ñi nga xamante ne ñoom ñoo di yéefar yi ñu ngi rey si ñoom juróom-ñaar fukki nit muy soixante-dix jàpp si ñoom soixante-dix personnes loolu nekkoon loo xamante ni itam bataille la boo xam ne jullit yi ñoom ñoo ko gañe nga xam ne keroog yéefar yi bi ñuy ñibbi si la ñu mere créé waat xeex bi nga xamante ni moom moo di ghazwat Uhud loolu beneen affaire la ñi nga xamante ni bëgg nañ dem Makka incha allah bu yàlla dogalee ñu dem ba ma Madinatul Munawwara danañ leen yóbbu ba Uhud wan leen ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa tëdd bokk na si ku ñuy wax Hanzara bokk na si ku ñuy wax Hamza ibnu Abdul Muttalib di bàyyi tax si Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon Baye Cheikh euh, xare Badar jamono bii la amoon bis ni tey teewul jullit yi li muy métti métti am na ñoo xamante ne dañu saxoo woon seen koor am na Médine tàng boobu la woor gënoon métti gënoon métti ba tey jii nii yow boo demee Uhud da nga yéemu si yàlla da nga naan ñii fan lañ doon jëlee ndox muñ naan jamono boobu ndax yow mi fa nekk di def li nga xamante moom moo di visite lieu yi bu buñ la jaayul ndox wala mayuñu la ndox doo am loo naan mm-hmm. parce que foofu ay xeer kese la gas fa teen moom xalaatoo ko si jamono boobu mm-hmm. jamono bi sax day metti mm-hmm. mais teewul jamono yooyu ñu sàlloo woon seen ngëm di woor ndax xam nañ ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax rek nee ne jaas yi yañ doon yor di xeex ngir lislaam jëm kanam ñaar rek la si yàlla yi defal jullit bi soit mu nekk ëllëg ker si yow ngir yowmal qiyaam nga dee dem aljana boo dawee mu nekk li nga xamante moom moo sa mbugal ndax kenn du jàmmaarloo noonu l'islam koo xam ne dafa bëgg a toroxal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yàlla dafa waxoon ne annabiyu wa azwajuhu ummahatuhum aaya mu wàccee seydna omar comme dafa tàngoon radiallahu anhu uh-huh. daneen sallallahu alayhi wa sallam avant aaya na man day wax dëgg yàlla uh-huh. man nga maa gënal sama ndey ak sama baay ak samay doom waaye sama jëmm ji uh-huh. moo ma gënal sama bopp ndax sama bopp la gënal du naa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko loolu waxuma ko yàlla moo ne man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa leen gënal seen ndey seen baay seen i doom seen i soxna gënal leen seen bopp Omar nekk bés ni ki tey yaa ma gënal sama bopp yaa ma gënal sama sama baay yaa ma gënal samay doom kooku mooy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam keroog jël na ay néewam suul leen jébbal leen borom bi subhanahu wa taala ñoom ñëpp ñu daal dee nekk ay martyr yéen sallallahu xeex na 26 xeex wala 27 selon riwaayaat yi mais benn rek la si perte muy xaswatu uxud nga xam ne ku dem madinatu munawwara buñ la fa yóbboo rek ba expliqué la sa yaram day daw nga war a mën a xam lan moo taxoon jullit yi ñàkkoon li nga xamante moom moo di xare bi yàlla moo doon wane foofu boppam ndax bu ñu gën a woon lépp rek dañuy daal dee naagu waaye il faut yàlla wan leen ne ay nit rek ngeen te am na loo xamante ni mënul ñàkk muy tolof tolof ak nattu ak li nga xamante ni moom moo di ay jafe-jafe àdduna kon cheikh yàlla nañ ko yàlla yàgg may ñu ñu koy nettali ay at yu bari si barki yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waaw xaswatu badar mu ngi noonu fa tabaarakallaahu fii la amee woon mu nekk loo xamante ni lu méttee méttee métti la woon xam nga woor ba pare mu wër na la doo naan lu mu tàng-tàng mu wër na la doo lekk lu mu metti metti metti waaye itam bii gën a metti nga boole ci di xeex di xeex te doo dëpp eh ndax boo dëppee buñ la reyee safara nga jëm eh, moo tax Serigne Touba radiallahu taala anhu nee na saxaaba yi <coughs> fas yiñ doon war seen purit yaroon génn seen gén mañ sax ñoo ëpp daraja bépp waliyu kon saxaaba yi matatu ñu ñuy wax ndax kuy dund yàlla xamal na la boo deewee aljana nga jëm te teewul ngay jaamu yàlla oh, yor sa jaasi di xeex ndax lii bu amul woon tey lislaam du yegg sa fii lii bu amul woon tey lislaam ñun du ñu si jot lii bu amul woon tey lislaam du dugg fi nga xamante moom moo di Afrique kon ñi gàcce ngaalaama ñoom yàlla ñu leen fayal moo kep kuy néewal saxaaba yi wala nga leen di doyadal wala nga leen di suufeel rek mhm. yow xamoo li xew ndax yàlla daf leen gërëm jaare ko si yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ko si alquran ay mhm. yooni yooni yooni mhm. yooni yoon moo tax sallallahu alayhi wasallam am fukk yoo xam ba si fukk ak benn ndax si la bokkoon yoo xam ne dund leen wax xamal na ma ne ay nitu ngeen te jaamu ak ndigalal muhammad sallallahu alayhi wasallam jaloore yooyu nga xam ni ma nga ci badar euh, loolu dafa exceptionnel. Euh, fàtte xaju fi ku fi fàtte ñu fàttali la. ku fi xam nga Uhud boobu yaa koy wax gis nga daratu Seyduna Muhammad sallallahu wa sallam du caaxaan. xam nga ku ñuy wax ki nga xam ne moo di Wahshi. Mm-hmm. dafa nekkoon koo xamante moo rayoon Hamza. si fi nga xamante ni moom moo di xeexu. Uhud mm-hmm. lu tax mu rayoon ko parce que ko ko sant woon di Hind dañu rayoon borom këram si gazwatu Badrin mu ne jaamam bi bés boo rayee kii ray sama jëkkër rek ma goreel la li ñuy moom mu ngi diir rek ba jam ki nga xamante moom moo di Hamza ibn Abdul Muttalib di bàyyi taxu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi di deretam xotti dënn ba jël xol ba macca deret ja jam jox ko Hind mu macca deret ja wax la deretu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu foore waaye si seen mu jëntalu dund ñoom ñaar ñëpp yàlla dafa def ñu tuub dugg si lislaam mu jéggal leen dugal leen aljana ndax deretu sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam bi dugg seen yaram yonent deretam bu dugg safara lu mel noonu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn du moom moo tax booy sey cey joojawaay wala kenn du moom kuñ ko rek yow tooñ nañ la waxuñu la li xew nee na bi yàlla nammee suñu am dafa jël si reeru sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam sàkk si maam aadama te ñun ñëpp si maam aadama lañ jógee ndax kullukum min aadama ba cheikh mhm. wa aadama min turabin macha allah <clears throat> allah wa